waa daje bi daje bi dafa nekkoon loo xamante ni si en tant que ay jeune bokk ci alliance pour la république euh, ñu ñëw feddali suñu kóllëre suñu diggante président Macky Sall wan ko ne ko taxawaay bi nga xamante ni moom la ñu amoon démb ak barki démb tey lañ koy gën a am tey lañ gën a nekk ci ginnaam tey lañu koy gën a dooleel loolu moo waral tey ñu génn en tant que ay jeune femmes yi génn tout le monde ñëpp ñëw wan président Macky sàll ni ko ñu ngi ci ginnaawam te ñu ngi feddali suñu kóllëre ak waaw lu keroog ñëpp gisal nañ ko suñu bopp ah en tant que jeune man damay woo ñi nga xamante ni tey ñooy responsable euh, département bi yëpp kilifa yi fi nekk yëpp njëkkee ko ci Ablaye Timbo euh, Pape Gorgui Ndong Abdou Karim Sall awañaa tous les responsables du département ñu gën a taxaw gën a wane euh, seen seen kattan au niveau du département ndax xale yi ñëw keroog euh, doon malentendu sax laay jàpp ne ni moo am parce que dañu ñëw euh, bëggoon wane seen cofeel bëggoon a wane seen mobilisation faf yàlla nag comprendre dante wuñu ak sécurité bi fa nekkoon jaxasoo daal di am mais xale yi bi ñuy ñëw ñëwuñu fa woon pour yàq wala pour euh, euh, demee lu lu demee noonu dañ fa ñëwoon pour juste wane seen mobilisation faf nag malentendu boobu am mais ci kaw loolu rek juste pour woo aussi responsable yi au niveau du département ne leen nañu gën a amaat taxawaay bi taxawaay bi nga xamante ni moo leen war bi ci njëkk seen diggante ak population bi diggante seen diggante ak président Macky ndax nag dafa am benn citation boo xamante ni dégg nañ Babacar Justin Ndiaye di ko wax ne boo nekkee ci nguur nga ci am ay privilèges soit tu défends ton leader avec ardeur soit tu le quittes avec grandeur donc man dama jàpp ne ni ñun bokk nañ ci jeunes yi nga xamante ni dañu défendre président Macky Sall avec ardeur défendre ko avec fierté défendre ko nag ci loo xamante ni si defe naa ne ni euh, bu ñu gisul woon ci moom njariñ wala bu ñu gisul woon mu am taxawaay bi heure bi kon fekkoon nañ ñu dem suñu yoon bu waaw man jàpp naa ne ni euh, euh, domaine boobu sax bëgguma ci woon a dugg parce que defe naa ne ni ki nga xam ne ni tey mooy président Macky Sall tal na leneen ndax duñ la dénk lu toll ni Sénégal ak ni mu toll jafe-jafe askan yi ak ni mu toll vraiment defe naa ne Macky Sall amul jotu sax wallahi azim di dugg ci lu mel ni ay affaire Adji Sarr yu dem noonu li ne ci boppam defe naa ne moo ëpp doole téeméeri junni yoon kaawu Sonko wala kaawu Adji Sarr réew lañ ko dénk te réew nag buñ la ko dénkee diis na diis boo xamante ni da ngay concentré wu ci li nga xam ne ni moo l'essentiel mais ay Adji Sarr ak yooyu Macky Sall talul loolu toute sincérité tallu loolu loolu nekkul ci xelam waaw euh, waaw bu mu ci bu mu ci mën ci doon aussi tamit parti politique la ñu la ñu la ñu nekk te damay faral di wax ne ni daan daanu dajul suuf bu fekkente ni emploi moo leen tax a jóg tam defe naa ne ni APR nekkalu fi euh, euh, askan wi yëpp la fi nekkal donc bu fekkente ni dañuy bëgg jël suñu temps yëpp wala emploi bu ñu am koy jox jeune APR yi man laa je ne pas d'accord parce que dañu fal président Macky Sall askan wi fal ko ngir mu gëstu jeunesse bi nga xamante ni ay jeune lambda lañ bokkuñ ci benn parti politique ñu aussi dañu am droit am liggéey dañu am droit am formation dañu am droit am financement donc ñooñu ñëpp ci askan wi la ñu bokk mais bu fekkee dañuy bëgg a basé wu suñu temps à chaque fois jeunesse APR génn di réclamer wu emploi man d' accord uma ci loolu. DER man fii laa dëkk ci commune bi di Pikine Ouest gis naa ne am na jeunes yu bari yoo xam ne ñu financé nañ leen. man gis naa ko jeunes yoo xamante ni yu bari financé nañ leen maintenant comme li ma la waxoon fële rek laa lay waxaat xëñ na daanu dajul suuf te peut-être ñëpp ñëpp mënuñu am mais lii l'essentiel mooy financé nañ maximum. waaw man moom que sa soi les les les responsables du département ou bien les responsables nationaux am na benn fuite de responsabilité boo xamante ni responsable yi nga xam ne ñoo ànd ci ginnaaw président Macky Sall def nañ ko. parce que ñun aussi duñu def te ñu ay dof population bi aussi teg nañ ci seen bët gis nañ ne ni boo boo dangay dem ba xool au départ dañu waxoon bu ci kenn wax ñu dem ba ci biir après ñu ni nañu wax donc buñu jékki-jékkee aussi bi yëf yi tàngee gisuñu kenn dégguñu kenn jeunesse bi lañu gis. kon loolu dama ci lancé waat appel président Macky Sall mu gën a gëstu mu gën a mu gën gëstu jeunesse su alliance pour la république wala jeunesse su Benno Bokk Yaakaar parce que tamit bi mu méttee ba métti ñi nga xam ne ni dañu am ndombol tànk ñu ci bari bu dee 100 pour cent la 90 pour cent yi gisuñu leen jeunesse bi ñoo taxawoon faire face ak parti bi nga xamante ni mooy le patriotes ay jeunes yoo xamante ni yu jàmbaar donc président Macky Sall aussi na gën a concentré wu ci ndaw ñi parce que ndaw ñi aussi tam musuñu daw seen ay responsabilité ah. non département de ngi doon am ay ku ne xam na non ku ne non non attends ku ne xam na ni dañu dañu dañu nekk ci jamono boo xamante ni feebar bi dafa lëmbe àdduna def na léegi un an ak lu teg kenn mënul def dara donc ci diggante bi non mais mais qu'importe en tout cas en tout cas dañu tere dajaloo bi maintenant dañu ñëw nii rek ñun def suñu participation euh, def euh, li nga xamante ni tey moo ñu war suñu diggante ak population bi mais ku ne xam na ni feebar bi permettrewul woon ci diggante un an yi ñuy daje wala di faire euh, quoi que ce soit non du question de kontaan wala wala wala ñàkk kontaan du question de kontaan wala ñàkk kontaan euh, liggéey boo gis wala ay nit fu ñuy nekk di ànd surtout parti politique du ñàkk mu am ay faay mais du ñàkk aussi mu am lu baax parce que duñu wax ne ni responsable yi fi nekk aussi tamit ñu dara dara am nañu lu ñu def dañ naan doyul nañu dolli mais duñu wax ne ni defuñu dara en toute sincérité. xam nga ministre de la jeunesse aussi parfois gars yi dañuy jaawale ministre de la jeunesse dénkuñu ko emploi ministre de ndaw ñi lañ ko dénk maintenant pour war leen a jàppale ci côté formation ci côté financement aussi defe naa ne ni waaw defe naa ne ni am nañ ci taxawaay am na ci taxawaay bu bu bu am solo muy Néné Fatoumata Tall di jàmbaar aussi di koo xamante ni macha allah ndaw ñi même bu dee 100 pour cent la 90 pour cent yi li may wax rek am na ci ñoo xamante ni ànd nañu ak moom ci ni muy doxalee maintenant nag buñ nee ñëpp ñëpp mën nañ leen utal liggéey loolu moom buñ ko waxee nit ñi sax defe naa ni dañ leen di nax waaw mais xam nga Sénégal Sénégal foo laal foo ci mën ci doon rek am na domaine boo xamante ni am na ñoo xam ne lii la bëgg am ñoo xamante ni peut-être bëgguñu lool am na jeunes yoo xam ne dañuy a am def Pikine dafa soxla am visage boo xamante ni kuy dugg si Pikine kontaan booy génn aussi kontaan te président Macky Sall ba mu faloo ba tey ci tànk yooyu la nekk tànk defar xar kanamu Pikine ñun li ñuy wax en tant que doomu Pikine très très fier de son excellence président Macky Sall kontaan nañ ci moom ndax xar kanamu mu bëgg a changé. vraiment merci beaucoup. merci merci merci. billaay Younousa sama ah, coach.